waaw asalaamaaleykum waa Touba Argentine TV maa ngi leen di féliciter di leen remercier ci présence bi e di jéeglu malheureusement ci affaire protocole bi tax aussi lépp mënuñ ko woon préparer pour aussi ngeen teew ndax euh, baaxoon na aussi ñu mën a véhiculer message yi pour ñëpp xam li nga xamante ne moom la mbooloo mi e mbooloo mi représenté communauté sénégalaise bi nga xamante ne moo fi nekk ndax euh, euh, li nga xamante moom lañ def Euh, mooy fexe ba sénégalais bu nekk mën a gis boppam ci réunion bi nga xamante ne moom lañ doon am ak président de la république muy d'abord visite boo xamante ne dañ ko rafetlu peut-être euh, bett nañu mais peut-être euh, du doon la première fois donc mën nañoo préparer pour la prochaine fois pour mu gën a yaatu léegi nag su ko defee nag ni même ni ñu bettee nag aussi ñu ngi góorgóorlu ñëpp def nañ seen kémtulaay kattan pour lépp mën a jaar yoon ndax Sénégal Eh, fu ñu waxee ci moom lu rafet rek ñun ñëppay kontaan fu ñu organiser woo recevoir suñuy président suñuy gouvernement suñu institution rek maanaam lu rafet la loo xamante ne peut-être mun nañ koy xoole suñu dëkk ndax ñun fu ñu nekk rek dañoo war di jaay suñu dëkk surtout ci organisation Jeux olympiques yi nga xamante moom la ñuy ñëw fii ci Argentine léegi ñëw fii aussi pour maanaam ñu mën a gën a jaay suñu dëkk muy Sénégal pour ñëpp mën a xam ne dëkk bi nga xamante mooy Sénégal bi gagné organisation bi nga xamante mooy Jeux olympiques yi di ñëw mérité na ko ndax am na organisation te maanaam am na aussi ay jeunesse yoo xamante ne bëgg nañoo jëm ca kanam donc li nga xamante ne moom lañ moom lañ doon waxtaane ci ndaje moomu mooy lépp li nga xamante moom mooy coono yi Sénégalais yi di daj fii ci dëkk bi ak li nga xamante moom lañ soxla pour maanaam gën a jëm kanam ci seen séjour ci à l'extérieur en Argentine comme en Amérique latine en général au Brésil disons donc ci loolu nag comme ni ma leen ko waxee fii ñëpp ñoo représenté woon c'est-à-dire la daïra Mouride la daïra Tidiane et l'association des Sénégalais donc yaakaar naa kenn ku nekk Sénégalais bu fi nekk war nga gis fa bopp sa foofu safar safar safar salaatu lasi fi kulli saarin wa 18 safar sunu mbégte yéen muudu muudu ya nekk ci Arsanti jaaxle jeex na soxla toxu ak jëndum bi avion ngir ñëw Sénégal fekk màggalu Touba gi ci njëgu xéwale jërëtul ngay xalaat bay amuk jaaxle ndax Touba Arsanti TV ñëw na ànd ak benn assas boo xam ni bu mag la ci diwaan bi ngir yombale leen bi yi ngir mën ko am ci njëgu xéwale bu ko defee ngir mën a dem màggali Touba wala ngeen gàmmu ji Touba Arsanti TV ni ñun dañoo lëkkaloo ak assas agence bu mag bu nekk ci diwaan bi ngir yombalal sénégalais yi fi nekk ñu am bay avion yu garantie ak bépp xeetu bay boo bëgg bu la neex itam mën ngaa am bay aller ak retour mangoog 18 safar yow mi bëgg a ñëw ngir màggal ci Touba ci dekk Argentine mën ngaa woote ci numéro yi ngir nga am ci bay 22 33 05 01 27 22 33 05 01 27 wala ba tey nga woote ci 22 36 96 76 42 22 36 96 76 16 ba tey mën ngeen a jokkoo ak Touba Argentine TV ci email Touba Argentine TV arobase gmail point com mu di xéewal goo xam ne Touba Argentine TV moo ko indi li sénégalais yi nekk ci Argentine ngir ñi bëgg ñëw màggal ci Touba wala ñu gàmm si mën ngeen a am ay billet avion yu yomb Touba Argentine TV lëkkaloo ci ak agence bu mag bu nekk ci Argentine Touba Argentine TV moo li di ñaanal màggalug jàmm. ci biir waxtaan boobu nag aussi président de la république déglu na ñëpp. bu mu dégloo ñëpp aussi am na li nga xamante ne baaxee nañu ko lu mel ni par exemple ne maanaam dina taxaw ba li nga xamante ne moo ñu gën a amal solo mooy suñu ambassadeur bi nga xamante moo nekk Brésil ñu mën ko accréditer fii le plus rapidement possible pour mu mun a nekk officiel pour gën a mën a taxaw fii aussi su ko defee sax maanaam ñun ñu mën a gën a am possibilité am consulat honoraire en attendant honoraire ak wala bureau consulaire su ko defee ñu kon commencé di gën a développer relation yi nga xamante ñoo am diggante Argentine ak Sénégal su ko defee lu bëri aussi ñu mën koo facilité li nga xamante ne aussi mooy point boo xamante ne bu am solo la ci mooy nag ñu bëri dañ doon laajte ndax carte d'identité yi ñu déposé fii fu ñuy toll wax nañ leen aussi taux bu faible bi nga xamante ne moo fi am biñ ko buñ koy defar mais lan moo ko waraloon maanaam mission bi nga xamante ne yàggu fi maanaam pour la prochaine fois mission yi maanaam di gën di fi gën di yàgg aussi di gën a nekk ay mbooloo boo xam ne day takk pour ñëpp mën a am ci seen droit boobu muy carte d'électeur yi loolu aussi wax na ne carte d'identité yi pare nañ naroon nañ ko indi mais ce n'était pas la la voie donc moo tax ñoom ñu ngi jëf lu tout pour carte d'identité le plus rapidement possible ñu mën a ñëw te pour bu ñu ñëwee sax bu bu ñu leen di joxe sax peut-être ñu mën cee boolewaale benn mission pour ñi nga xamante ne dañoo am problème mu passeport ñu mën ko fajaale benn yoon leneen li nga xamante ne mooy lu am solo loo xam ne aussi waxtaan nañ ko fi mooy eh, suñu mbokk yi nga xamante ne ñoo fi wàññeekoo te wax dëgg neex yàlla Amérique latin at yi eh, at bi xaw a métti ci moom ñoom réellement te surtout suñu soxna boo xamante ne dafa eggoon suñu xol ñun ñëpp aussi ci communauté bi te gaañu démb juste bi président di fi waaj ñëw ñu taxaw ci nag ne aussi maanaam mu jàppale ñu eh, ndax xam nañ ne Sénégal dañuy góorgóorlu ñëpp. sénégal yëpp ñoo doon góorgóorlu pour envoyé corps yi mais mbir mi dafa dem ba tar ba moom tamit loolu yëkkati na loxoom maanaam def ko ci ce qui veut dire que moom tey dama koy wax sax pour ñëpp xam ko ndax ñu fa nekkoon kii nañ ko <coughs> mille euros pour aider ci li nga xamante ne mooy rapatriement yu corps bu corps boobu. donc loolu aussi muy loo xamante ne lu ñuy rafetlu na daal di yëkkatiwaat aussi 5000 euros daal di ko aussi baaxe ñi nga xamante ne mooy daara murid yi. pour lan pour aussi ñoom aussi mu mën a ñu mën a développer li nga xamante ne seen liggéey la fii ak daara Tijaan la même chose mille euro ndax ñoom ñëpp aussi dañuy bokk ci li nga xamante ne mooy développement suñu culture diffusion suñu culture fii ci dëkk bi. donc loolu aussi mu def ko comme participation ndax xam nañ ne liggéey bi yëpp mbooloo moo koy def mais participation la mu ci def leneen mu ciy tegal aussi mooy jigéen ñi nga xamante ne ñoom. non seulement phase moom nee na dina jéem a def lu tout pour seen financement ñoom ñu mën cee am accès sinon ko aussi moom yëkkati na 5000 euros aussi jagleel ko jigéen yi nga xamante ñoo fi nag ne leen loolu maa leen ko dolli pour maanaam ngeen mën a développer aussi seen organisation ak seen activité fii pour le moment en attendant projet yi li nga xamante ne moom la ci toftal nag aussi mooy ne eh, eh, ñi nga xamante ne mooy diaspora bi nga xamante ne moo nekk fii aussi mu mën a taxaw góor góorlu pour bokk ci li nga xamante ne mooy logement yi nga xamante ne mooy yombalal nañ la ko ñi nga xamante ne ñoo nekk à l'extérieur donc ñooñu comme lu mel ni logement yi nekk ay côté Saly yooyu nga xam ne prix yi ce ne son pas des prix trop chers pour ñun aussi ñu organiser wu pour mën a bokk ci genre projet yooyu maanaam organiser wu bi mooy def ay liste organiser wu ci ay coopérative pour maanaam mën a bokk ci logement yooyu donc yaakaar naa ne grosso modo loolu mooy li nga xamante ne moom moom la président waxtaan ak communauté sénégalaise bi nga xamante moo présent woon foofu représenté toute la communauté sénégalaise en Argentine en particulier en Amérique latine en général pour joytu lépp li nga xamante ne moo jëm ci seen nekk waay fii ci Argentine mais li nga xamante ne moo am solo mooy président tey par exemple amoon na benn diine eh, maanaam waxtaan ak affaire étrangères e yaakaar naa ne liñ faw wax yépp mu ngi jëm ci relation gën pour Sénégal ak Argentine gën a jàppale ci lu jàppalante ci lu bëri donc loolu jàppalante boobu ñun ñi nga xamante ñoo nekk fii mën nañ cee jëriñoo comme ñu aussi Sénégal mën na fay jëri mën na cee jëriñoo comme Argentine aussi mën na cee jëriñoo donc loolu yëpp ay question diplomatique la yoo xamante ne ñoom lépp loo xamante ne ñoom ñu ngi koy dox ci côté boobu rek daf ñuy favoriser. waaw lépp li nga xamante ne moo jëm ci euh, defaraat maanaam suqale li nga xamante ne mooy situation sénégalais yi nekk en Amérique latine en général ñun dañ koy yëge président de la république pour maanaam moom mu yëge ko homologue am fii donc loolu aussi mënul ñàkk a nekk benn ci point yi ndax xam nañ ne loolu des fois mooy doon première point yi donc même bu fekkee ne nekkul ne maanaam mu toog ñaan ko sax maanaam ñuy wax ko maanaam moom mu xool ni ñuy defee pour faciliter suñu intégration fii ndax loolu mën na koo waxtaan ak li nga xamante ñooy autorités yi fii te ci loolu lañ nekk ñun à chaque fois dossier wala document yi nga xamante moom la ñuy présenté yooyu la ñuy laaj à chaque fois ci lu ñu nekk même bu dul fii sax même bu nekkee feneen sax maanaam ñuy faciliter suñu integration ak ci lépp li nga xamante mooy anam yi nga xamante ni ci la ñuy yëngu mu doon économiquement mais aussi surtout ci wàllu këyit donc yooyu ñu ci seen xel daal lépp loo xamante ne daal war nañ ko koo yëgee ñun ñu ngi ko koy te tey aussi yaakaar naa même ambassadeur ak ñi nga xamante ne mooy ñi jël parole yëpp jéem nañ ci wax ci li nga xamante ne mooy point yu mel noonu te yaakaar naa président moom mu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax si wax nga léegi ni comme président dajewoon na ak ministre affaires affaires dajewoon na ak affaire étrangère bu fii léegi nii euh, gis nañ maanaam dernièrement li am problème yi Sénégal yi gën a am fii muy këyit yi ñu doon légaliser Brésil Argentine da ko mujj bañ ba léegi di ñu yóbbu Nigéria ñu di ko fa légaliser loolu xaw naa difficile ci ñu bari ba xañ na am na ci ñu bari yoo xam ne seen ay tramité taxaw na ndax loolu est-ce que yéen loolu àgg ngeen ko président ba moom peut-être au niveau de euh, ci wàllu ci au niveau des ministères affaires étrangères bu Argentine mu wax ak mu war mu mën a wax ak ñoom peut ba facilité yooyu ñu ñu defaloon ñu def ñu ko ba peut-être au lieu ñuy demaat Nigeria ñu mën a euh, demaat euh, Brésil di ko fa defee en naa ñuy gën a dëgëral relation yi ci wàllu diplomatie. waaw loolu dëgg la mais aussi dama bëgg a leeral benn affaire légalisation document sénégal yi résidé en Argentine eh, pour toujours Nigéria moo nekkoon fi nga xamante ne fa lañ ko mënoon a defar. si si maanaam signature Sénégal Nigéria yàlla nekk loolu. si bu fekkee ne nag ci benn activité maanaam ci benn moment boo xam ne benn régime moo ñu permettre ñu koy def aussi ba ñoom ñu. bañ koy defati aussi dañuy reconnaître ne ñoom lañ doon def peut benn question x moo tax ñoom defatuñ ko moo ñoom ñu renvoyé waat ko fi nga xamante fa lañ ko war a def donc loolu personnellement peut-être nit mën na ne c'est difficile mais nag faw ñu continuer di ko defee noonu di jéem a xool voies yi nga xamante ne ci suñu administration mën nañ cee jaar pour faciliter ko Sénégalais yi ba ñu mën koo en attendant ñun li nga xamante ne moom la ñuy def mooy def dañoo dépasser les légalisations ñun dañoo def une pétition boo xam ne pour toute la diaspora sénégalaise waxatuma la en Argentine waxuma la en Amérique latine mais la diaspora sénégalaise au niveau mondial ñun li nga xamante ne moom lañ proposé président de la république mooy mu signer la convention du octobre bi nga xamante ne mooy def raccourci pour maanaam supprimer li nga xamante ne mooy légalisation des documents publics étrangers Sénégal bu signé convention boobu yow sa document bu jógee Sénégal cachet bu bu aay lay am rek daal di yegg si donc loolu mooy fi nga xamante ne fa lañ jublu parce que xam nañ ne buñ bëggee contourner li nga xamante ne mooy la bëgg maanaam ñuy suivre donc état bu bëgg jàppale sa njaboot ku bëgg jàppale sa diaspora te xam nañ suñu état Sénégal xam na ne la diaspora sénégalaise c'est la quinzième région comme niñ koy waxee donc bu fekkee ne jëral nañ ñu ko bu fekkee ne apport bu am solo boobu la ñuy def ci àdduna ci suñu réew muy Sénégal donc yaakaar naa état yu Sénégal war na mën a toog jéem a réfléchir ci li nga xamante mooy la signature convention boobu pour faciliter seen eh, njabootam ci li nga xamante mooy démarche yooyu eh, ndax am na état yu bëri yoo xamante ne souscrire nañ li nga xamante mooy convention bi te seen diaspora moom moom eh, dañoo ama amañu am seen diaspora demewul noonu amuñu woon peut-être problème problème yu grave noonu mais ñoom def nañ ko donc seen cas dafa gën a facile donc pourquoi pas le Sénégal mënu koo def baax na jërëjëf Moustapha kon ñu ngi lay sant la gërëm nga jox nga tàggoo waaw merci beaucoup waaw xanaa di gërëm ñëpp ñi nga xamante ñoo fi nekk ñi nga xamante ñëw nañ taxaw jàpp ci affaire bi réception suñu du ma wax kese suñu président de la république mais la communauté bi nga xamante ñoo ñëw commission bi ñëw pour représenter Sénégal ci li nga xamante moo organisation Jeux olympiques yi ba pare war a yóbbu flambeau bi nga xamante ne mooy wone ne suñu dëkk mën na def liggéey boo xamante ne bu am solo ci wàllu organisation mais aussi ci wàllu li nga xamante ne mooy sport te mu nekk loo xam ne dafa soxal jeunes yi dafa bokk ci li nga xamante ne mooy développement de la jeunesse ndax jeunesse c'est le donc yaakaar naa lool c'est un honneur pour l'Afrique c'est un honneur pour le Sénégal ñun suñu honneur la war a doon donc ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp lépp lu ci waaye def da ngay jéem rek mais yaakaar naa ni Sénégalais yi fi nekk yëpp peut-être nit sa xool mën na métti et cetera mais ñëpp defar ma pour ñu am jàmm ñaanal ñi nga xamante ne seen bakkan dafee des yàlla yërëm leen te xare leen àjjana ñun ñi fi des aussi yàlla may ñu fan yu gudd te defal ñu xewal defal ñu ay kayit ñu ñëpp ñi ko amul am ko ñu gën a organiser wu bu baax a baax gën mbooloo te xam ne mbooloo rek mooy doole. jërëjëf merci beaucoup.